alhamdulilahi rabbil aalamiin wa salli allaahumma wa sallim alaa abdika wa rasuulika muhammad wa alaa aalihi wa asxaabihi ajmaiin amma baad mbokki jullit yi sunu borom tabaaraka wa taala mi ngi wax ci alquraanul kariim ne wa daraba allahu mathalan qaryatan kaanat aaminatan mutma'innatan ya'tiihaa rizquhaa ragadan min kulli makaan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون nee na borom bi tabaraka wa dafay joxe misaal ci ay dëkk yoo xam ne dañuy am jàmm nekk ci sécurité akuk dal stabilité dem ba seen wërsëg di ñëw ca nam ware wet gu nekk wërsëg di leen ko jóge ak jàmm waaye ñàkk jëfe ndigali sunu borom tabaraka wa tax dëkk yooye mën nañoo dem ba lépp loo xam ne nekkoon na jàmm mu soppi ko ay lépp lu nekkoon ak dal soppi ko fitna te fekk loola la ko waral mooy doomu aadama yi ñoo jëf lu tax ñu faye leen lu mel noona borom bi tabaraka wa taala waxaat ne fal yaabudu rabba hada beyt nee na jaamu leen yàlla yàlla moom yi nga xam ne moo leen jox lu ngeen lekk waaye moo leen may jàmm akuk dal alladi at'amahum min juu' wa amanahum min xawf mbokki jullit yi képp kuy xool li xew ci àdduna tey rawatina ci dëkki jullit yi ba ci sun gox yi ci afrig dana gis ne fitna bari na lool deret yi tuuru bari na lool bakkan yi rot bari na lool geer yi tàkk ci biir dëkk jullit yi bari na lool dem na ba mu nekk na joo xam ne ña nekk ci biir di xeexak ak ñuy ñëw di fa dugg si di xeexak kenn xamatul ki dee ci lum dee moom mi dee sax xamul ci lu ko rey kay reye sax moom ci boppam xamul kii muy rey ci lan la koy rey kon loolu mooy fit fitna orma yu bari xotti nañ ko réew yu bari demoon ba tàmbalee am développement di jëm kanam delloo nañ ko gannaaw ngir fitna loolu nag kan moo ci jariñu lu tax loolu lu mel noonu lu ko indi lu tax muy am ak njariñul kan la ak ban responsabilité la kenn ku nekk am ci saafara fitna jooji nga xam ne mi ngi ci àdduna tey dereti julli gi di tuuru sant yàlla moonu war ndax ba léegi sunum réew alhamdulilah mi ngi ci jàmm mi ngi am ak dal waaye képp kuy jàngat xew-xewi àdduna ak na muy walangaane ak na muy duggee da yëg ne fogaru jot na jël responsabilité itam jot na ci képp kuy xool fan yi fan yu mujj yi kenn ku nekk xam na ne ay xew-xew am na ci sunu réew mi yoo xam ne àgg na fenn fu nekk ba kenn ku nekk yëg na ko coow li bari na ci lool ñi ci interpellé nit ñi sax bari na lool ba àgg ci ñuy wax soo xam ne lu tax imaam yi ak xutbakat yi ñu ne cell waxuñu ci li xew mbokki jullit yi mbir ngoog moo xam ne e, dafa aaje ay taxawaay taxawaay biral ak leeralante ak waxante wax yoo xam ne waxi dëgg la yoo xam ne yàlla rek moo tax jël responsabilité dafa war kenn ku nekk ci anam goo xam ne lañu cay jublu mooy fitna bañ a dem ba agsi ci sunum réew ba àgg foo xam ne dab dabaatal ko dana weesu dañuy wax ne nag na bu jublu see di ñëw boroom xam-xam ya ñoom ñoo ko mën a jàngat ñoo ko mën a xam waaye su xasee ñëw nag ñépp danañ ko xamandoo ñéppay xam ne lii ñëw moom fit na la kon loolu moo tax ku yàlla wërsëgale dara ci xam-xam wala dara ci responsabilité bi diine ak fu responsabilité ba mën a féete jaadootul ngay noppi moo tax dama ne responsabilité bi ci lii di xew nii ak lii yënd di xeeñ nekk ci sunuy gox nekk ci àdduna bi mel ne lu jublu sunum réew kooku responsabilité bi ñépp la responsabilité ba ci jëkk mooy responsabilité imaam yi ak boroom xam-xam yi ñooñu dama ne nañu ragal yàlla ci ndaw ñi nañ ittewoo yar ak jàngale ak tasaare lislaam ja nga xam ne mooy lislaam di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale nga xam ne lislaam ju ëpput la waaye lislaam ju yéesut la itam loola jaadu na ci ñoom taxawaay boobee ñu taxawe ko moo xam dañoo ne ci kaw minbar wala dañoo nekk ci géewu xam-xam di jàngale wala dañoo nekk ci jotaay di tasaare di conférence wala ñuy def lépp loo xam ne joxe xam-xama nga ca loola dafa war a fés dana jaadu ci ñoom ñu sori lépp loo xam ne exploitation la ci wàllu lislaam moo xam dafa jëm ci wàllu politique wala dafa jëm ci ay intérêt yoo xam ne nit ki intérêt yi boppam wala intérêt yi ab famim moo tax muy jëfandikoo lislaam ca loola kooku lis imaam yi war nañ ko wattandikoo wootekati lislaam yi war nañ ko wattandiko dana war ci ñoom ñu ittewoo sécurité seenum réew ndax ñoom ay docteur lañ ci réew mi ñoo xam ne defar ak jubbanti ak tasaari jàmm moo leen tax a jóg kon seen itte ci sécurité ci réew mi moo war a ëpp sax itte yi ña ñuy tudde ay homme de sécurité yoo xam ne dañoo jóg di gëstu lépp loo xam ne fitna la ngir man koo fay ma ne imaam yi ak wootekat yi ñoo war a ëpp yitte ci fànn googu ci lépp luy indi sécurité ci réew waaye loolu ci nan lañ koy defee mooy ca la xam ne keneen mënu ko mooy ndaw ñi ñu jàngal leen diine ñu xam ko xam xamin woo xam ne dana àgg ci xóot goo xam ne dana leen musal ci bépp xalaat bu teeng mën a ñëw këf leen yóbbu leen dana leen mën a musal itam ci lépp loo xam ne lu jéggi dayo la ñu xam ne loolu bokkul ci diine lislaam su xam-xam ba matut nag mooy tax nit te lu ñëw mën na ko yóbbu loolu moo tax mu jaadu ci mboolem association yi nga xam ne dañoo jóg di woote ci lislaam wala ñu jóg di yar ñu gën a yokk seen itte ci lépp lu jëm ci wàllu formation ak tàggat tàggat wootekat yi ñu gën a xam nu ñuy wootee ak ci gan anam lañ koy def xam ngeen ne ñiy topp liggéeyu béréb bii ñu nekk fukki at ak juróom yi ñu weesu gis na ne ay séminaire yu bare bare bari eh, def nañ ko fi yoo xam ne tàggat ay boroomi xam-xam ak i imaam yuy xutba ak i jàngalekat ak i woote ci lislaam loolu moo ko yëkkati ba biñ ko seetee gis nañ ni yéesul ñaar fukki séminaire yoo xam ne jot nañ koo def ci béréb bi ci diggante boobu euh, loola nag doon loo xam ne jàpp nañ ne am na njariñ ndax lillahi alhamd nattabluwuñ ne ay xalaatiin yu teeng am na ci réew mi ni mu amee ci yeneen i gox waaye li ñuy sant sunu borom tabaraka wa taala mooy yëgagun kenn jotleegunu wax na ne ñi nga xam ne jaar nañ fii bañ forme leen day gis nañ ci ñenn ñoo xam ne am nay xalaat yuñ leen mën a tuumaal yoo xam ne yu jéggi dayo la ci wàllu diine kon nag loolu lu ñu sant sunu borom tabaraka wa taala ñaareel bi ndaw ñi am nañ responsabilité mooy nañ dellu ci seeni boroomi xam-xam réew mi alhamdulilah boroomi xam-xam a ngi fi ay imaam a ngi fi yoo xam li ñuy jëmbat ci ndaw ñi su ca saxee lislaam dana tasaaroo ni mu war a tasaaroo te fitna du am nañ góorgóorlu ci sàkku xam-xam te sàkkoo ko ci boroomi xam-xam nañ xam ne xam-xam dañ koy jële ci làmmiñu boroom xam-xam waaye ay cassette kub internet ak i télévision loola day xëy na mënees na caa jële ay information waaye xam-xam bu cosaanu ci xolub nit ki akum xelam ak ay cëram ba mën koo dund mën koo tasaari ci nit ñi xam-xam boobu ci boroom xam-xam lay jóge kon ndaw ñi nañu dellu ci boroom xam-xam yi jàng jàng nag dafa doon lu metti ndax dafa laaj muñ dafa laaj nangoo sonn dafa laaj nangoo mokkal lu dul loolu fortaatu fii ak fortaatu fële kenn ku nekk xam na ne fitna yu bari am léegi kenn du wax ne ay école am yu koy génne wala lenn mais ci biir internet bi ci li ñuy jële fitna bi kon ab internet bi ci jële ab xam-xam mën nañ caa jële nag ay maalumaat maanaam ay information yoo xam ne da koy portaatu rek waaye du génne borom xam-xam loolu nag mooy tax fitna mën a yomb wattandiku yépp xalaat yoo xam ne xalaat yu fédd géewu la li ñuy wax sudus yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon na ko mu ne man shadda shadda fi nnaar nee na ku fédd géewu fa nga jëm sawara la yal na yàlla musal ca loolu gannaaw bu loolu jàllee état ci boppam responsabilité mooy responsabilité bu mag bi ndax fépp fu état taxaw moom la ñuy laaj moom la ñuy séentu mu taxaw ci sécuriser sécuriser askan wa man leen a aar kon ñoom loola mooy seen itte yi jëkk waaye nag problème yi nga xam ne mooy xew te yenn yi di xewe ci biir diine yu ci baree bari yuy bette la yoo xam ne laaj na bàyyi xel ab lim ci ay yoon yoo xam ne ci lan war a jaar nun ñëpp ngir mën a àgg ci sunum réew jàmm mën fee sax ba faw diine it mën fee sax ba faw jéego yooyu bokk na ci bi ci sës mooy nangoo déglu boroom xam-xam yi nga xam ne xam nañ leen ci jàngale ak yar ci anam koo xam ne jàmm lay jur seen plan ya ñuy teg ngir tasaare lislaam ñi xam ne yooya mooy yi jub ñoo fa war a mën a nekk ngir lislaam tasaaroo te lu dul loola te du jur du jur aw ay ñaareel ba moo di boroom xam-xam yi jàng diine ba xam ko duma wax ne peeg ko sax ndax peeg diine yombut waaye ba xam ci diine lu bare bari ñooña li ñu man ci ñi nga xam ne feebaru bi ñuy tudde xuluw muy teengal ci wàllu diine daf leen a dal boroom xam-xam yooyu liñ mën ci saafara ko keneen mënu ko ci ñoom kon ñooña ki nga xam ne dafa amum lënt ba jàpp ne lislaam ci boppam ngir nga mën koo tasaare dangaa war a jóg yor jaasi di xeex kooku am lënt la yor moo xam ne laaj na ku toog ak moom dindi lënt moom it ba mu xam ne lislaam mën naa tasaaroo te yoru jaasi kon kooku responsabilité la boo xam ne ku dimbandikoo wut boroom xam-xam yi ci loolu danga nga sonn lool lool waaye saafara ko lu jafee jafe lay doon ndax kat e, saafaras e, tëjëg yu nuroog moom dëgg la xëy na day mën naa nekk saafara léeg-léeg ci ñenn waaye léeg-léeg am na ñoo xam ne loola du saafara ci ñoom ndax ki nga xam ne da ngay jëflanteeg moom mu jàpp ne lu ko dal daf koo dal fi sabilillah boo ko tëjee danga koo tëj fi sabilillah boo ko reyee da ko rey fi sabilillah àjjana la jëm kon kooku bu fekkee dafa am lënt mu nekk ci boppam boroom xam-xam moo ko mën a dindi waaye keneen mënu koo dindi ñetteel ba moo di nañ wattandiku lool def ay jëf yoo xam ne def ay jëf yoo xam ne ay nit mën nañ caa déggee ne lii xeexub lislaam la waaye du xeex pour sécurité loolu nañ ko wattandiku bu baax a baax a baax a baax moo tax damay wax ne suñuy saafara yu mel nii nañu wattandiku takkale diggante jàkka yi ak daara yi ak fitna su loolu amee rek ay nit danañ ko firee ne xeexub lislaam la waaye li war a am mooy su fitna amee ka def fitna ji nga xam ne kii diw sàngam la bu fekkee am nañ ay firnde yu wér yuy wane ne moo ko def su boobaa diw sàngam moo tooñ mu andi fitna lu mu doon doon sa mbokk ak loo ko jege jege jege jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne unsur axaaka zaliman aw masluman sa mbokk bu tooñee da jàpp ci loxoom ne ko yaa tooñ kon kooka lu mu jege jege su boobaa dañuy jàpp ne ko tooñ la suñ ko tooñee nag su boobaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógal taxaw ànd ak moom dimbali ko kon ab roqa foofu bu sew boo xam ne bu mat a bàyyi xel la ci anam yi ñuy saafara xew-xew yi diw sàngam daal moo defu njaaxum moo ko def waaye du caa gën a jàkka jam nekkoon a ko def wala daara jam dend la ko def wala daara yépp noonu lañ mel wala jàkka yépp noonu lañ mel loolu mooy indi aw askan dem ba mu ñu ne ah, ñii kat dañoo jóg di xeex lislaam kon koy bu jóg te kooku musiba lay indi ci am réew daal moo tooñ tooñ nga weesuwu ko nañ ko yemale ci moom ba ba ñuy gisaat keneen ku tooñ ñu door a seqtewaat beneen jéego jëm ca moom bokk na ca tomb yooyu te am solo moo di nit ñi askan wi ni ñuy dunde lu leen di bennale lu nekk dafa am solo te lislaam dafa ñëw di bennale jullit yépp waaye dikkul di tàqale fitna yu mel nii rek su amee léeg-léeg nit ñi dañuy profité buñ yeexee état mën nañoo jaxasam xelam ci wàllu diine ba mu jàpp ne fitna yi kët ci kuréel sàngam rek la jógee waaye kuréel sàngam ñoom nitu jàmm lañ loolu musiba la moom itam nañ ko wattandiku fitna bi fu nekk la mën a jóge ci àdduna su fekkee ne xas na ba ñëw ci réew kon buñ ko askane ab kuréel buñ ko askane ab association buñ ko askane ab tariqa wala ab mouvement wala lenn waaye comme li ma ko waxee léegi nit ki indi fitna moom moo indi fitna fi lu dul ñi ciy tuumaal keneen koo xam ne yoonam nekkul ci loola beneen bi mooy suñuy saafara yu mel nii ñu wattandiku plan yi nga xam ne Occident ñoom ñoo ko teg ne nii lañuy ñuy saafara fitna yi am ci àdduna bi ndax plan yooyu yi ci bari da cee am yoo xam ne nun jigunu nun en tant que ay jullit yi nekk fii ci Afrique am na ci plan yoo xam ne nun jigunu baaxul pour nun taxu taxunu koo jóg suñ ko jëlee nam mel noona nag bëgg koo appliquer fii kooku mën naa jur fitna ci sunum réew te plan yooyu li lay wan ne échec na mooy fépp fuñ ko doon jëfandikoo ci àdduna di jéem a saafara li ñu tudde terrorisme danoo gis ne dafa yokk dafa yokk ba tëleen ba jaaxal leen liñ ci fere ci alal kenn xamul nu mu toll liñ ci daj ci ay recherche rek ay gëstoog ay sonn coono bi bari na tax gisaguñ saafara kon kuy dimbalanteeg ñoom dëgg la mën na nekk waaye ñi wattandiku jël plan bañ teg nga jël ko ne dama koy jël euh, jëfandikoo ko ci samam réew ndax loolu mën naa indi fitna yii nag responsabilité moo tax dee si ko wax ci kanam mbooloo ak di ko yëgal àdduna bépp ñi ànd yëg ko ngir ay conseil ak i laaya biir yu jóge ci seen mbokkum jullit moo xam ne xam na lu yàlla dogal na mu gis lu bare bare bari ci liy xew ci àdduna bi tey bokk na ci ay conférence internationale ca penkook ca sow yoo xam ne dañoo jóg di gëstu lu jëm ci fànnu delloo si jàmm ci biir réew yi lu gis ne réew jullit yi réew yi jullit yi ci seen bopp yi ma gis ñu seqeegoon ay jéego yu am njariñ ci ak teengal ci wàllu diine ñi di ko saafara mooy ñi nga xam ne saafara sa dañ koo jële ci seen biirum réew jële ko ci seen boroomi xam-xam ñu tegal leen plan yoo xam ne suñ jëf leen teg ndaw ñooñee danañ leen delloo siwaat bañ jël si ci biir géttug lislaam te fitna du am jàpp naa ne réew yooyu bokk na ci réew mi ci gën a seqi ab jéego tey Arabie saoudite kon kooku lu mat bàyyi xel la ci anam googu gannaaw ba loolu jàllee frontières yi ci boppam lu mat a bàyyi xel la loolu wax la rek waaye lu am moom mi ngi am waaye nag wet gi may waxe mooy ñu bañ a xàmmee kenn ak kenn léeg-léeg suñ jógee di seet buñ jàppee ne askan sàngam la ñuy seet wala ku jege réew sàngam la ñuy seet ku jege réew sàngam seetuñu ko wala nit ku ñuul la ñuy seet seetuñu nit ku weex wala ab tubaab la ñuy seet seetuñum naar wala naar la ñuy seet seetuñu tubaab faay mën naa am ci liggéey bi yépp la ñuy seet na am régal général yoo xam ne kuy dugg cim réew ku nekk ca nga war a jaar soo ci jaaree dugg soo ci jaarul doo dugg loolu jàpp naa ne ñi ngi koy def waaye ab soññee la su loolu jàllee mboolem askan wi am nañ responsabilité ndax duñ wax ne lii responsabilité imaam yi dong la wala ndaw ñi dong la wala état bi dong la waaye mboolem askan wi ku dib sénégalais tey am nga responsabilité ci lu la war loolu mooy lan moo di nañ laayante biir nañ waxante dëgg buñ nëbboonte ku gis ci sa moroom loo xam ne xam nga ne lii du noona laayal biir sa mbokkum jullit mu del siwaat moo xam ay xalaat la moo xam ay gis-gis la moo xam lu mu bëgg a def loolu la ci nit ñi dund ak nit ñi lañ ca man ñu bari mënuñu ko ci nañ laayante biir it ci wattandiku wattandiku li nga xam ne dañ koy gis moom it mu yënd ci diggante kuréeli diine yi ndax suñ demee ba am kuréelu diine bu mën a taxaw di wax ne ku bokkut ci man damay jóg taxaw di la xeex kooku fitna la yoo xam ne dañ ko war dañ ko war ko war a fay suñ baree fitna bañee fitna tàkk kuréel yooyu dañ ko war a fay te tey jii ay rajo ngi wax ak i télévision ci ay dëkk yoo xam ne li ñuy wax mooy ku nekk ci dëkk bi da ngay nekk ci nangam soo ci nekk da ngaa a génn dëkk yu mel noonu yu ma a bàyyi xel la fitna li indi ci am réew ñu bari dañuy dem ba mu yàgg njaxas day am ci seeni xel ñu jàpp ne l'islam ji am léegi muy association yeeg ñuy jàngale njàngale mu bees ak noonu lañ koy tuddee jàpp ne loola daal jombul loola indaale fitna yi waaye la fi nekkoon démb ak bëkk démb loola jàmmi kese la déedéet loolu njuumte la du noonu jàmm li koy indi mooy def ay sababam lépp lu koy luy indi safaan ba nga dàq loola loolu mooy indi jàmm ci am réew sun bàyyi nun ñii ak sun sëriñ si nga xam ne ñoo fi nekkoon seen histoire dara wala lu bari boog réeru nu ci xam nañ fan jaaroon nun gëm nañ ne nit yi jàmm lañ woon waaye ndax doon googee ñu ko doonoon tee na ñu jàpp ci ñoom tëj am na ñuy tëj ci ñoom am na ñoo xam ne dañ leen a rey am na ñoo xam ne dañ leen a génne seeni réew ci seen jamono waaw ndax ka doon def ci ñoom loola dafa jàppoon ne nit yi jàmm lañ déedéet jàppul woon ne nit yi jàmm lañ nun noo dem ba jëmmi jamono noo xam ne nit yi jàmm lañ kon nag buñ ñëw ba tey ñu ne ngir sàngam wala kuréel sàngam ku ca bokk yaay nitu jàmm ku ca bokkul nit nekkoon di fi jàmm li am solo mooy mbir mi aaja na gëstu aaja na teey wattandikoo jaxase loo xam ne lu wërta jaxasoo la ay ay ay xeex ak ay daret yu tuuri am na fi yu bari yoo xam ne histoire réew mi bind na ko ci diggante ay kuréeli diine kuréel taxaw ba mu yàgg beneen kuréel ñëw di sosu beneen du fi amee ñuy xeex loolu am na fi kuréel jóg na fi dugg ci am réew am ñu nekk ci beneen kuréel ñu leen par force da ngeen di dugg ci suñ kuréel yor ay ay jaasi di xeex ak ñoom kon mbir mi ñu bañ a dellu ci histoire réew mi ak la ca gannaaw xam ne jàmm moom jàmm la tudd ak jamono yu man nekk yu nekk lan war nun tey mooy ñu jël suñu responsabilité ne dafay indiw ay ak fu mu mën nekk mu nekk ci sama biir kër mu nekk ci sa kër yow mu nekk ci sama dëkk mu nekk ci dëkku keneen lu waay man ba fitna jooje yam foofa te bañ a jëm kanam dina liggéey ngir mu yem kooka kooku mooy responsabilité bi nu war tey nun ñëpp en tant que aw askan wi dund ci am réew moo xam ne dañ koo bëgg a tabax bëgg mu jëm kanam bëgg nit ñi nekk ci jàmm bëgg diine ji tasaaro bëgg nit ak réer génn ci ay bida del ci alxuraan ci sunna su kon liggéey la war a doon kenn waru ko keneen des bu loolu jàllee responsabilité ñi nga xam ne wax dëgg yàlla léeg-léeg ñu tarxiis lool ci yu mel nii di tasaare ay xabaar yu wérut wala xabaar bu wér nga yokk ca lu ca bokk wala nga joxe image bi wala ci am loolu dafay faral di am lool ci njaxas kuy déglu tey fan yii kuy déglu lu bari ci rajo yi xëy na du yëpp lu bari ci journaux yi lu bari ci ñuy binde ci mel ni imaam yi ñoom lañ ciblé tey nag loolu ngay déggee ci presse bi day mel ni fu imaam nekk fu ne daal dafa war a tiit te xam ne dañoo accès waaye ci kawam lañ jëm loolu loolu mbir mi demewul noonu wala waru naa demee ba tax na sax ñi ngay dégg ne fit ñi ngi leen di jàpp wala yu mel noonu ñi ci doonoon ay imaam sax ay imaam lañ leen def am na koo xam ne ñoom ñëpp maase nañ ci naan imaam diw te ñëpp xam nañ ne kooku du imaam kon fexe ba jox nit ci benn image ñu ne imaam yi Sénégal yi dañ leen a ciblé seenu état dafa tàmbali di leen jàpp xalaat boobu wërta tasaaroo man bare bari na ma yoo xam ne bitim réew lañ jógee ci ñoo xam ne dañuy topp lu mel noonu ci ay état sax ñoo xam ne ci état la ñuy liggéey ñuy laaj dañoo dégg ne Sénégal léegi imaam yi dañ leen di jàpp demewul noonu kon nañ jël seen responsabilité te wax loo xam ne luñ xam la allahuma hayyi lana min amrina rachada wajcalna hudatan muhtadin اللهم اهدنا بالصالحات اعمالنا واجعل خير ايامنا يوم لقائك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك وأنا عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين